<laughs> dina jafe ci man nag man may may may may jàngale. Mm-hmm. sama ñi ñi ma jàngal ñi ma boole opposition na naka la ñu war a doxal kon xëy na nga laaj ko ñu ñu àndal ci plateau bi waaye man daal li li li li gën a am solo ci eh, li li ma mën a wax. Mm-hmm. mooy li ma wax sànq. ñu ngi jëm ci xam ñu ngi ci biir xeex bi sax. Mm-hmm. ñu ngi ci xeex ak pouvoir. ñu ngi ci xeex troisième mandat. ñu ngi ci xeex. boo xam ne li ñu bëggal Sénégal mooy jàmm ndax troisième mandat bii dëgg la waxagu ci dara waaye mi ngi teg ay jéego yu ca jëm bés bu dikkee ba ñu nangu ne mën na ne coow dina bari ci réew mi yàq dina bari yàqu yàqu lay dina dina bari ci ci réew mi kon nañu des ci di dox man koo ànd aar sañu bokk ba yëf yi du tas. d'accord surtout. faut faire face à la stratégie adverse. d'accord